ils ont pas, ils n'avaient pas de confiance. On leur on fait jouer le match dans leur zone, pas dans notre zone. Et qu'est-ce qui s'est passé après Deuxième mi-temps, quand on a vu que Siré, il prenait la balle tout le temps, la plaque tournante de l'équipe de cette équipe-là, mais euh, fais entrer Ngana. Qu'est-ce que tu vas mettre un, militaire défensif là-bas Trois militaires défensifs qui se mettent côte à côte. voilà trois milieux défensifs ont dit, ils côte à côte plaque tournante di mais si là wax il y' a un problème wallaay seetaanoo match bi après dama dem sama dama si on gagne ce sera une surprise parce que lii moom c' pas possible même malgré 1-0 la bàyyi seetaanoo tuwaat match bi. après bi ma toogaat ci ñu lay toog xoolaat si tiro bi la xaw ma. Mm-hmm. lay xoolaat après match bi ci guddi gi lay xoolaat match bi comment on a joué dans ce truc là mais beaucoup, cette année di nga dem ba mais y' a un problème. y' a un problème c'est pas le problème. problème de moi même les joueurs ce sont des professionnels. il mm-hmm. y' a un moment il faut aider la il faut aider l'entraîneur système bo xamante yow dalay yow tu peux gagner avec n'importe quel système avec ci match bi mais amna yo xam do ko nangu Côte d'Ivoire bi 4-0 il a gagné un match même bu il n'y yor pas équipe mais yow do bàyyi Côte d'Ivoire mu a di lu dominer possession de balle nous ñu ko tu es champion d'Afrique ci gagne 1-0 premier mi-temps jusqu'à 85e minute mais lui reculer soit on avait des joueurs mais normalement am ay joueurs il fatigués nga y a def changement benn changement kese bu ko defoon que soit le qui soit le jeune là non la tuddati. Lamine Camara déedéet pas Lamine Camara Lamine faisait ça Pape Matar. Mhm. parce que y' a un moment pas Matar était inutile dans ces matchs là. Mhm. mais génneel pas Matar rek nga jël Ngana Ngana Ngana gis nga Ali li ko doon utiliser boo gisee Ngana sénégalais di ko commencé doon yuuxoo il faisait pas performance mu def mais parce que milieu défensif la ko doon def Ngana yalla may na ko mu def box to box té Ngana bu ngeen sétané fait carré mi mu nekk ni ci dougal le gën a di défendre def ko tout box tout box bu dem taxaw ci kanamu Siré match bi jeex na c'est plié ñun Siré mo nu Siré mo vous Sénégalais Siré Siré jël bal bi football lo football bi football am tendance bi di wax lan la dafa am audace on parle de les plus vieux ñoo ñoo gagné coupe d'Afrique bi Max Gradel. Mm-hmm. Siré Siré non non euh, Serge Aurier du moins. Aurier mm. ñoo ñoo gagné Coupe d'Afrique bi. Mm. les vieux ñi nga xam ne waa ji xalaatu loolu football leen. Mm. mais on a des jeunes déggoo ma ne la jamono ji cycle bi mu ngi Sénégal la quantité et la qualité des joueurs. kenn ku génne woon keneen mën na dem dugg Aliou. coupe d'Afrique bi gënoon a jekk ci moom dix mille fois coupe d'Afrique bi ni jógee ndax kenn mënu doon parier kenn ku ma sax am football mosul doon parier ne match bi mooy coupe d'Afrique 2022, mille bi ko jël les premiers matchs deuxième match troisième match kenn mënu doon taxaw wax na dinañ gagné match bi mais à l'arrivée imaginez yow nga dem ba équipe yëpp la ragal quantité qualité des joueurs man gisatuma moon bok football Sénégal bi est-ce que xam nga né am ngeen lu bari lu ngeen fàtte dañuy faté lu bari Aliou pendant ces 9 ans 7 ans lan lan don lan lan don ki Aliou y a pas de jeu on n'a pas de jeu et Sénégal c'est jeu bi mu am ni jamono ji gisuma ben équipe bu nu meuna tenir te les gens oublient vite fait man kan damay wax ne Aliou il a gagné de de de, de l' expérience dama ne li erreur la bon niveau bi ngay wax nak ne Aliou dina dem wala du dem man bu fekkone ne dama nekk fédération dama wax ne toog 2025 a une Coupe d'afrique bo fi changer équipe tu chambre tout lenn lenn lenn kessé moy mom ngay def les entraîneurs locaux là nanu fees ci staff bi je suis pas d'accord. je suis pas raciste je suis pas d'accord. lay mu jëlee feulé xamul football Afrique xamul ci dara ñëw tegal lu fii mu ñu waji di buuma ko bummi man je suis pas d'accord suma premier kii ak coow ak mom moy lolu ñun dañu xeex a xeex bané jour bi ñu ministre bi nu nu invité man ak ñoom élage on avait préparé nos t-shirts pour jublu ci kaw fédération t-shirt yëpp ñu ci def dégager la fédération ñu ñëw woonu pour ñu waxtaan bu ñuy waxtaan dañ ne leen fii dañu bëgg plus de plus de plus de plus d'étrangers dans cette équipe là fi yi am na fii yu mëna yor équipe c'est la preuve en est que xool ko tey ji li fiy jël coupe d'Afrique yëpp entraîneur local yi la. bi ñu génnee Aliou njëkk a woote ñu ne ko prépare-toi mais le fait que déjà ngay dem di signer contrat yóbbu ay nasaraan yóbbu ay nasaraan bàyyi ñi nga xam ne bu dee kiné bu adjoint man je suis pas j'étais pas d'accord soit on garde ces gens-là soit on prend les locaux il faut pas que nit nga xeeb sa bopp. tey jii Côte d'Ivoire dañu xeeb mukk mukk seen doomu réew te gis nga Côte d'Ivoire yàlla dafa def fayee jël Coupe d'Afrique bii. Gaye Gisele yaa ngi fàttaliku seen Coupe d'Afrique que deux mille lan la douze la xaw ma. quand ils deux fois en finale. Gaye Gisele la. le François Zawi. Zawi mm. mais mais mais xoolal football bi ivoirien de football ils ont perdu quoi au tiro bi à la finale. kooku il ne